Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement Et te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. What, what, what, what are the people? Gotta fix bi da nga ko jël boole ko ak beneen beneen ren waaw boobu ko ko waaw wàllu tam xeex tam garab boo xam ne bëri na pour tukki bu yor wàllu rap, wala faru jini wala ngay yaakaar mu tas ci soxla fii lu fi nekk bari na tey moom am na vidéo vidéo yoo xam ne dugaloon naa leen génnewoon naa leen ci biir kër gi mais bii tey moom dama ñëw ak ci biir bi àll bi waaw bu dee comme pour feebaru jigéen waaw boobu garabu si bi moom moo koy faj bu dee koo koo xam ne jigéen koo koo xam ne moo la wàll feebar danga nga jël garab bi lii nga sama ko mu a daj maa ngi ñàkk yéen daal comme ci njëriñ bu bari waaw keroog génne woon benn kii vidéo boo xam ne dafa dem ci madame Tay Faye waaw vidéo boobu jàll na li ma ci waxoon tam yaakaar ne ñu bari gis nañ gis nañ ko tey tey moom dama ñëw ak yéen rek woon leen bu nekk suñu xalaat moom daal di woon tey tey euh, ma ngi gërëm nag ma benn journaliste Assane Diouf waaw ah, maa ngi gërëm nag seen TV yëpp ah, mbokku Fatick yëpp mbokku Saloum ngi Saloum bu ñuy wax Kaffrine fa laa nekk comme li ma leen waa moom boobu moom affaire yëmb na wala ku tukki tukki ko am kayit amoo kayit wala nga dem woo amoo liggéey wala ngay ngay am jafe-jafe pour tukki bu dee tam koo xam ne dañ ko liggéey wala ñu koy xeex ci ci biir bi feeyam 36 855 14 36 waaw tey moom. 77 waaw 77 855 14 36 tey moom damaa ñëwoon rek pour wax ak waaw nag ma soxla boo jëlee sama dafa ñu lay xeex wala liggéey bu bon bu nekk say sa yaram walu jini walu rab loolu mom yaakaar ne buñ ci jokkale soobee yalla di nga am lo xamné ne vraiment dal na sa sa xel waaw ngi wax nag suñu mbokk ci ñun ñep ben ci comme ni ma xon keroog rek nit ki lu mu la sant tey bu dee mënoo ko ko wax bu dé lii mu nako tontonte parce que tey nit boo xam ne dafa jóg am yaakaar ci yow ñëw diis la la soxla am da nga war a ñëw rek donc moom boo na ko mën a jàppale nga jàppale ñëpp maa ngi nuyu ñëpp nag di ziare yëpp di baal yëpp tam comme pour wàllu doom jigéen boo xam ne comme boo boo demee boo yaakaar naaw bi ne moo lay moo koy def suufu déeg mais loolu dafa am loo loo xam ne da nga koy boole moom comme koo xam ne dafa sëy doo amul doom yaakaar ne déeg bokk moo koy def ko xaw ko takk ko mënatu ñaari weer doo dugg ci néegi sëy waaw bu dee garab bii lu muy faj tam bari na affaire xeex la bii pour affaire xeex la xeex ba xeexu kay la bii boo ci amee bi juróom-ñaar def ci bi ren bi jour vendredi weer ko ba mu wow nga wol ko def ko sunguf boole ko beneen garab boo ko sangwee wallahi asim ku la liggéey gis nga dégg yi nu nu mu defee bon bon bën di jam yaramam yi noonu lay xel di def kon nag maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bàllu yëpp ak di nu wax ne tey Serigne Mohamed mu ñëwoon di wax yéen ci ci biir àll bi waaw su ma numéro téléphone ma joxaat leen ko 855 14 37 koo xam ne am nga loo xam ne def laa jaaxle boo ma wooyee dégg ma jëf waaw dinaa naan la ci tey tegtal wax la ci Sénégal 4 TV yow ya ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever si vous gan nga ci kër gi sur le bouton abonnement bi té bul faté activer cloche de notification bi dé ngir baña tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. Sénégal 4 TV yow ya ko ku ne mën na wax ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29. Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage.